mbokk yi boroom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde jabet ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54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 a comme nam ko defee woon rek ah, ca sûreté urbaine ah, ni ki noonu ah, la ko defee rek ca kanamu juge ba nangu a addu benn yoon mu mel nag ni ki démb gannaaw audition ba nga xamante ne amal nañ ko moom juge ba daal na koy place rek sous mandat de dépôt jamono ji nag daal nañ koy yóbbu ca prison bu Sébikotane gannaaw a mandat de dépôt boobu ko juge bi daal di dóor teguñu ca ay heure sax kii di jëwriñ ji njënk kaaraange réew mi daal di génn communiqué rek dissoudre bi les loolu nag mu daal di nekk lu doy waar gannaaw ba xamante ni sax moom Ousmane ko daal nañ koy rek denc ca prison ba partem tamit dañ ko daal di tas loolu nag daal di tax ba ñu ci bëri rek daal di génn di ca addu waaye nag ab bu daal di samp ci yenn ci ay wala sax ay élu député yi tamit bokk ca Pastef lan mooy seen avenir mu mel ni nag ñoom dañuy daal di garder seenu poste ba léegi waaye teewul ñi nga xamante ne ñoom ñoo di force vive dal nañu rek génn addu ci li ni mel bokk na tamit ca ña nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk yenn ci ay parti politique bokk na ci Bougane Gueye ma nga xamante ni sax mu wax naan kii di Macky Sall mbébétam rek moo doon daal di tëj Ousmane Sonko am na la mu bëggoon ndax daal dina koy tëj waaye nag ñoom daañu taxaw rek xeex ba ñu daal di bàyyi rek kii di Ousmane Sonko te war nañ ko bàyyi nu mu gën a gaawee Khalifa Sall ca wet ga moom nag mu wax naan daa yàgg rek soutenir ka nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko bokk na ci coowam ak Adji Sarr moom ak kii di Barthélémy Diaz teewoon nañ sax ah, ba ca këram rek apporté seenu soutien ndax kat jamono ji gis nañ ña nga xamante ne ñu nga koy joxoñ baaraamu tuuma rek ci di wax sax naan dafa daal di woor rek Ousmane Sonko waral nag ba moom ah, muy daal di wane rek message de soutien boo xamante ne daal na koy am rek ah, ci kii di Ousmane Sonko ma nga xamante ne daal nañ koy rek denc ca prison ba dissolution parti Pastef mu mel ni Cheikh Bamba Dièye daal na ci rek yéey yàbbi na rek ci wax naan abus d'autorité la ñu daal di def rek gannaaw ka nga ne moo nekk euh, bopp ca parti bi di Pastef euh, ñu daal di koy jàpp euh, yamatuñ ca loolu daal di rek tas parti am moom Cheikh Bamba Dièye dafa jàpp ne rek mbir mi dafa daal di doon rek abus d'autorité naka noonu beneen parti di les serviteurs te Pape Djibril Fall nekk ca bopp ba ñoom tamit ñu ngay apporter seen soutien ci rek Ousmane Sonko ma nga xamante ne daal di nañ koy yóbbu ca prison ba ñoom les serviteurs ñu daal di apporter rek seen soutien tey sàkku ñu daal di bàyyi kii di Ousmane Sonko nu mu gën a a jàpp ngañ ko jàpp ni ki démb mu mel ni mbeddu ndakaaru yi tàngoon na jër xale yaa ngay génn di manifester yenn ci ay gox-goxaat lu ca mel ni parcelle mu mel ni xale tamit génn nañu di rek manifester baare taliba taali a di wane rek seen ub ñugu-ñugu xol ci kii di Ousmane Sonko ma nga xamante ni sax daanaka jamono ji ñu ngi ko daal di yóbbu rek ca prison bu Sébikotane waral a ba ñoom ni ki démb ak tey rek wane ci Ousmane Sonko ma ñu daal di teg teg loxo diwaanu parcelle ba léegi mu mel ni seen maire ba di Jamil Sané dik daf ko daal di teg loxo loolu nag ni ki tey lañ ko daal di amal moom ka nga xamante ne moom moo nekk rek ca bopp parcelle di Jamil Sané gannaaw ñu daal di rek jàpp Ousmane Sonko ak na nga xamante ne noonu la ñu doon rek wane seen ñugu ñugu xool mu mel ni moom tamit dik daal di nañ koy convoqué rek ba daal di daal di defee rek ca maire bu Patte d'Oie waa dik tamit daal di nañ koy convoqué rek moom Maymouna Dieye mu mel ni jamono ji mu nga ca loxol dikk gannaaw convocation boo xamante rek daal dina koy jot coowal Pape Alé Niang moom tamit ba nga xamante ni nag dossier ba ñu nga koy gën a critiquer rek gannaaw procureur rek lam ca daal di addu rek daal di criminaliser bii les dossiers moom a Alé Niang mu mel ni kii di juge Mamadou Seck moom lañ daal di désigner rek ci bii les a moom jamono ji nag tamit ñu nga ko daal di rek denc nëbb ko jant bi Cheikh Omar gannaaw nag ñu euh, toppee woon leen rek la nga xamante ne moom moo di atteinte à la sûreté de l'État ni ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2023 ñoom nag ñu koy woy rek di des ca prison ba gannaaw liberté provisoire ba nga xamante ne ñu leen ko doon sàkkul mu mel ni dañ ko daal di dàq moom Cheikh Omar Diagne ak Karim Xurum Xaq ba léegi dañuy daal di des rek ca prison ba Joal Juan Branco gannaaw mu daal di teew rek ci Sénégal ca conférence de presse ba nga xamante ni pôle d'avocat Ousmane Sonko organisé woon nañ ko rek mu mel ni ñii di yoon dañ ko doon wër sax waaye moom muy wax sax ne ragalul dara teew fii ci Sénégal waaye nag gannaaw conférence de presse ba daal di jeex kenn tegu ko gët mu mel ni moom ma ci coowam googu sax am na kenn koo xamante ne daal nañ ko cay teg loxo muy Aminata Macky Tall moom nag mu nekk kuy liggéeyee ca diwaanu Sonatel gannaaw nag ñii di di koy placer rek nag ñu jàpp ne sax ne dafa daal di jàpp rek ci la nga xamante ne moom moo di teewaayu kii di Juan Branco lépp loo xamante ni rek dafa daal di jëm ci teewaayam fii ci Sénégal ak na muy génnee moom daf ca daal di dugal loxoom rek bañ daal di sax jàpp la nga xamante ne moom moo di numéro immatricule bu otoom waral nag ñii di sûreté urbaine daal di koy rek teg loxo daal di koy placé en garde à vue moom Aminata Macky Tall ne kii Ousmane Sonko ak jugement ba nga xamante ne ñoo ko doon amal rek ci dossier. dossier am ak la ca procureur wax yëpp mu mel ni euh, internet ba dañ ko daal di dagg euh, comme nañu ko defee woon rek ca coowam ak Adji Sarr euh, jamono ji nag mu mel ni lii di données mobiles yi daal di nañ koy rek dakkal mu mel ni kii di taskatu xabaar bi di Astou daal di ci yéey rek mu jàpp ne internet bi ñu dagg teguñu ko ci yoon mu doon loo xamante ni tamit gàllankoor na liggéey yu bëri rek gannaaw ñu daal di koy couper rek jëm ci wàllub jokkalante bi muy internet bi plage Lagone Colobane soriwul dara palais de la république mu mel ni ñaari corps sans vie la ñu fa daal di gis loolu nag mu nekk ab waay bu am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom ak xale bo am lu toll ci fukki at mu daal di nekk sax ab élève mu mel ni nag waay ja daf ko doon jéem a sauver rek waaye ñoom ñaar daal di ànd rek daal di lapp mu doon lu doy waar gannaaw nag découvert ba nga xamante ne daal nañ ko fay gis rek ñi di sapeur pompier daal nañuy gàddu rek la nga xamante ne moom moo di l'hôpital ca hôpital ndaw Ndao mu mel ni ab bébé la ñu daal di fekk mu ñàkk bakkanam ci app machine à laver lool nag mu doon lu doy waar kii di baay ba nag mu ngay def ay révélation yu daw yaram ci rek li ni mel gannaaw bébé ba nga xamante ne fekk nañ ko rek ca machine à laver ba mu ñàkk bakkanam gannaaw nag yoon daal di teew rek dugal loxo loxoom ci li ni mel daal nañuy teg rek loxo ñett ci ay agent yoo xamante ne ñu nga nekkoon ci biile l'hôpital wax kii di Eumeu Sène daal dinay takk ñaareel du kenn ku dul Khadija Mohamed nekk animatrice ca RTS moom tamit ñu ngi ko ràññee bu baax a baax rek ca RTS 2 xamante ni sax mu ngi fa am ab rubrique ci di tam-tam moom Khadija Mohamed moom mooy ñaareelu mbër mi di Eumeu Sène jamono ji nag moom Khadija madame Ngom lay wuyo nekk soxna ci Eumeu Sène Vigi ak Baye Mass ni ki 5 août ñoom ñaar nga bokk benn benn date waaye nag fa ñuy tëggee bokk la ku ca nekk mu nga ca yàbbi muy animateurs yi ku ci mel ni Abano Stress tamit mu ngay wax rek ci yële événement nga xamante ne ñaari ndaw daal nañ koy organiser rek muy Vigi ak Baye Mass muy wax nag naan dina dem ci bu ci nekk rek pour bañ kenn daal di mer loolu nag mu daal di nekk benn événement ñaari date Vigi daal di koy bokk ak kii di Baye Mass wax ci révélation yi nga xamante ne Jimbori daal na koy def rek ci Adja Diallo wax nag eh, ci lu jëm ci wàllub chirurgie ba nga xamante ne eh, daal dina koy def eh, mu daal di doon loo xamante ni kii di Adja Diallo weddiwu ko woon benn yoon ndax xam nga dox rek naan nan ñu ca bëri rek daal nañuy def chirurgie waaye nag jamono jëji mbóori di waxee ci chirurgie ba mu daal di def moom Adja Diallo mu ngay snap rek ci son vigi mu mel ni la ñuy wax moom safu ko benn yoon mu ngay dund mbégteem di partage ay snabam Coumba Gawlo Seck moom la ñuy gis noonu rek gannaaw mu delluwaat ci scène bi mu mel ni mu ngi nekk en communion réunion ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay fansam ci rek ay soirée ak i concert ñu ngi koy gis noonu nag ak ambiance ba nga xamante ne mu nga koy dundandoor rek ak i fansam jeexale wàllub tàggat yaram mu mel ni Iliman Ndiaye daal dinay officiel rek ci club bi di olympique bu Marseille gannaaw nag clubam daal di rek sàkk woon ngir mu daal di toog foofa ca Premier League ba mu mel ni nag moom daal nañuy trouver sax accord ak ñi di olympique bu Marseille jamono ji nag daal dinay signé mu mel ni officiel na ci keneen ko officiel la ci beneen club Sadio Mané lay wuyoo mu mel ni daal dinay rek wan ginnaaw Bayern de Munich gannaaw sax mbëbëtam toogoon foofu rek gën a prouver boppam waaye nag mu mel ni nekkinam foofu neexatul woon dara waral nag ba moom mu daal di trouver accord ak club bii di Al nga xamante ne fële Cristiano Ronaldo daal di nekk mu mel ni jamono ji nag amal na visite médicale ma daal dinay signé rek contrat ba nga xamante ne ñii di club sàkk ko rek ci moom Sadio Mané. mbokk yi safoon doon doon seen actu du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf